billahi min aseytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala nabiyil karim sayidina wa maulana muhammadin ilmakin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi sawi ridwaani wa tamkin bokk yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu seen mbokkum taalibe Moustapha Guèye indicatif Seexul Xadiim di taalibe sëriñ Abdou Lahad Mbacke moom sëriñ Moustapha Massamba radiyallahu taala anhu di soppeeb sëriñ Mbacke moom maam soxna loo Jóob Taayif radiyallahu taala anhuma tey ànd ak sëriñ Muntaxa ci liggéeyal sëriñ Touba saa su nekk te di ko ñaanal mu yàgg fi te wér amiin tey roy Cheikh Abdou Lahad dëgg radiyallahu taala anhu moo amaat ndimbalal yàlla del siwaat ba mën a àndaat ak yéen ci waxtaan wi ñu sumb te di ko fàttalikoo ko Cheikh Mamadul Moustapha ibnu Xaadimu Rasul jàmbaar ña boroom xam-xam ba boroom ngor ga boroom jom ja boroom jàmm ja boroom ba boroom jikko yu baax yépp te yàlla matale woon ko ci moom bañ ko daan woowee kamaal Cheikh Mamadou Moustapha moomee nag mooy constitué sama mouridisme lépp lu ñu war a def ci yoon wi bu ñu demee ba am ca ngëlëmte nañ jël Cheikh Mamadou Moustapha teg topp parcours am bu ñu ko toppee nga natt ko ca la ngay def ba agsi ci fii nga amee jaaxle nga xool yoon wa sëñ Modou Moustapha jëloon nga continuer waaw te xam ne foofaa yoon wa ndax obligo yi nga xam ne wala signalisation yi ñuy def ci kaw tali bi loolu képp a ko tax a jóg daf lay gindi teg la ciw yoon ba nga àgg fa nga jëm ci loolu dul am benn gàllankoor kon moom sëriñ Mamadou Moussa it mën nañ ko tuddee table signalisation. yaax Cheikh Mamadul Moustapha moom yi nag mag ci doom yi sëñ Tuubaa yi ci ñiy dund njëkk ko fee wutu ci xalifaam li ñu waroon a tabax ci yoon yu ba kenn ku nekk mën a ñëw di ca teg moo ko fonde moo ko tàmbali moo ko tabax ba mu raate ba def ca la ca war a def lépp nga xam ne ak si dugg ak yokk ak yeesal doo nga ca def ca loola ba fi ci lañ nekk kenn mënta def ci yoon wi loo fekkul sëñ Modou Moustapha defoon ko jikkoom yooyu nag képp koo xam ne bëgg nga am ngërëmal sëñ Touba jikkoom yooyu dong nga mën a gàddu dem boo fa bàyyee benn dana bari lu manqué te la nga bëgg doo ko am boo fa bàyyee léppit doo am dara loolu nag bu ñu jëloon ab gëstu bu xóot di ko gëstu ci moom te ñeme ak dëgg lool ci di ko dox ak di ko wax te xol bu rafet lool te sell yaakaar naa ne bu ñu ko orienté ci moom rek li ñu bëgg lépp suñu borom dana lu ko defal ndax fàggu teg yàlla la ci sëñ Tuubaa ndax Seex Amadu Musaa moomu amul kenn kuy def lu baax ci àddina te ñaanoo yàlla am ku ndax ku gis li amoon ci ay at kat da naan kii dund na juróom ñeent fukki at waaye ñaare li mu dund boo ko calculé ci atum euh, tubaab yi lim lay jox mooy soixante huit ans cinquante huit ans cinquante kon kooku soixante ans sax mën nañ ne amu bi mu fi wutu sëñ tubaa ñeent fukki at la am waaye bi muy mottali yéene sëñ tubaa ji. ci fukki at ak juróom-ñett la ko def dem dëkkaale jeeg boroom kenn mësu koo dégg ci dara kenn mësu koo atteeg kenn mësta jaay kenn doole mësta not kenn mësta xeeb kenn mësta bañ kenn daf doon yoroon cir ku mën a maslaa maslaa maslaa mooy ku ne ak jikkoom nga mën a fexe ba ànd ak moom ca lool mënoon a muñ lool di dégg lu ko naqari sëgg mu jàll te ku ku ne fii ne boo ko laajoon daan sëñ Modou Moustapha kat nit mësu koo ñemee wax lu mu ko war wax waaye moom moo ko waxal boppam muñ gi nga xam ne alxuraan na ko déglu ne fasbir sabran jamilan wax ne inna allaha maha sabirin loola la def cislaay ci élément bi nga xam ne moom lay accompagner léegi Sëñ Tuubaa bi ndax réew mi boobu dafa fees dell ko kiñaan fees dell ko soxor fees dell ak ko bañante fees dell nag ak ko yàqalante sëñ Modou Moustapha nag ñu dugal ko ci diggante boobu mu war a def nag lii nga xam ne tey mooy édifice bu mag bi kon kooku ku jàpp ne deewul dégg lu ko naqari wala deewul am lu ko naqari xamoo fi ngay teg sa tànk moom day waxal na boppam ne gannaaw bi fi sëñ Touba jógee bu dul woon sëñ Omar Mbàkke gelawangal mii nga xam ne fekk na ci jataay sëñ Touba lu bari mu dénk ko lu bari wax ak moom lu bari bokk ak man lépp danaa génn senegal di dox ba fu ma yàlla moome ñu denc ma fa ndax bu dee lu ñuy wax wax nañ ma ko bu dee lu ñuy def def nañu ko sama der bii day bu doon mbuus muy def ndox bënn nañ ko ba gajaa nga mënatu koo def dañ ma saa ko wax de kon nag jikko joojee mu yore woon ba mën a bon ñëpp bang bang nit ñi ñëpp muñ ko royee ko ci sallallahu alayhi wasallam te wuutoo ko sëñ Touba waxuma sax maanaam xalifa bu fi toog waaye ñëpp la war képp kuy jiite mbooloo rek loolu war kon la tax feeñul ba kenn ku nekk mën caa jot ak muñam la loola nag da koo def si jabatu sëñ Tuubaa ba kenn ku ne bi nga toogee ca loolee nga doon doxe moom it nga ànd ak gis nga nit ñi bala ngaa mën a ànd ak ñoom ci dara da leen di abal jën te di leen wax dëgg tey dox ci jub soo leen amalee njariñ tey tey dox ci ak jub te di leen wax dëgg te di leen jariñ luñ loo am jox leen luñ am nga bàyyee leen ko boole di leen yërëm kenn ku ne sa soxla nga di ci dox doo am ak ñoom benn problème moo tax sëñ Touba dafa waxoon ne yàlla dama séq ak moom ñett yoo xam ne si ëmma ak oo tax na ëmma ci kenn problème nit ñi it ma séq ak ñoom ñett yàlla lu mu digle rek def na ko def naa ko lu mu tere mësee suma ci jën te lu dogal neex na ma doomu aadama it lu ñu am lu mu am dimbali naa leen lu am ma bàyyee leen ko lu am lu ma am dimbali naa Euh, te lu luñ am ma bàyyi te du mosuma cee tooñ kenn te ku ma tooñ jéggal naa la kon loolu mooy doxi ni nit ku rafet sañ Touba looloo tabax yoonam bii loolee nag aw yoon la waxan si du du dëng du daay jamono buñ ciy dox ba mujj ñu gis lu ci bokkul rek xam ne wàcc nañ ñelloo loolu sax buñ ko màndargaat ci ab autoroute booy daw ba mu yàgg nga wàcc foo wër te wàcc na nga xam ne da nga wëraat ba sonn da nga fu ne da nga fa def te sa oto mën naa paan sa gasoil mën naa jeex da nga demaat yéegeeyaat fa sori tegawaat ci yoon wa boole koog di contrôler wala fa nga bëgg doo am doo fa am kon loolu mooy tàmbali li nga xam ne tey moom lañ bëgg a mottali ci waxtaan yii nga xam ne ci lañ génn muy fukkeel waxtaan bi ñett tolloon ci jumaa ji woote ba mu woote woon ak yabla gam yable woon ndokk ak ñam ca yabaloon muy Cheikh Mamadou Fadal Cheikh Massamba sëñ Modou Awa Balla ñoom sëñ Cheikh Awa Balla sëñ Moustapha Fall moom maam Cheikh Ibrahima Fall sëñ Mandoumbe Mbacke ñoom ñëpp dem fa di liggéey di indi di sotti ci jumaa ji kon loola it maslaa bu mën a maslaa ñoom ak bokk gim nangoo bokk ñoom sëñ Tuubaa te jaayu leen ci benn pouvoir jël addina teg ne bala nga koo mën nag addina moom da ngay tàggoog moom ba pare ni ngay tàggoog addina mooy da ngay wan addina gannaaw te addina ni ñu koy wan a gannaaw du ceegi ne da dem ba jaaxle amatoo foo jëm nga ne wan na addina gannaaw addinaa la wan gannaaw addina ni koy wan a gannaaw mooy da nga koy da danga koy jekk lool mën a jëflanteeg moom ba pare wan ko gannaaw dëgmal suñ borom noonu la sëñ Modou Moustapha defoon ànd ko Cheikh Cheikh Modou Fadal koo xam ne sii mësulee na jaay pouvoir man maay xalifa koo xam ne sii mësta am dara foo yoog moom lu mu am da koy teg ci pénc mi woote li nga xam ne nag moo gën a mënoon moo tax yoon wi nasu ba nag ni mooy ku mënoon a maslaa te alxuraan dafa wax wa saawirhum fil am fil amri lépp looy def rek na nga woo ñi nga war a diisoo nga diisoo ko te sallallahu alayhi wa sallam lañ ko wax moom jikkoy sallallahu alayhi wa sallam jooja maslaa googee mu daan maslaa moo tax nee na bu ngeen gisoon ma dugg ci am pax te dugal dugal ma fa bu ngeen fa geesoo du ngeen ma fa gis ndax lépp loo xam si bëgg na koo nasal sañ tuubaa te fas yéene ko def ci yoon wi du ne maay xalifa maa ko fi njëkk wuutu am naa sañ-sañ am naa man-man lii xew léegi ab leetar lay bind mboolem ko bokk ci yoon wi njaboot geeg seex si ku ne mu bind la ab leetar wax la ne la damaa fas yéene liggéeyal sëñ Touba nangam ma lay laaj fii ma toog boo fi toogoon lu ci sa xalaat yow nga tontu ko mu jël leetar ba denc ba jël leetar yëpp teppi ko jàng ba xool ñi ëpp ci lañ féete mu féete ko loolu mooy li xew léegi rek bu ñu defoon lu ñuy def teg ci pinc mi waxtaan ña war a bokk bokk ña war a dégg di dégg ña ca war a jot di ca jot kenn du réeroo waaye bu beru amee rek ñii di dugg ko génn rek seytaane daal di dugg ci biir am ñu mu jël teg ca kanam ñu dugg di yàq te yàq googee moom du ñu mën a jariñ dara lu tax ñu dem mukk lu taxit lañ bëgg na am ko kon c'est très important Cheikh Mamadou Moustapha ñaari éléments yi muy mën a muñ lool dégg la ko naqari sëgg mu jàll muñ loo ko yàlla ak mën a maslaa lool kenn ku nekk cër ba nga am mu bàyyi la ko <laughs> waaye nag ak mën a diisoo xeebul kenn xeebul xalaatu kenn kenn ku nekk cër ba mu la war a jox jox na la ko ba ma sëkk ci lu kenn amul sikk sàkk baay bi jox na ko cër mu jox rakk ji cër jox taalibe bi cër jox doomi seex cër jox jëmmi doomu aadama ji kat jël kilifa yi diine jox leen cër tubaab bi nekkoon fii saay saay li muy bon bon bon bon daf ko joxoon cër ba moo tax it tubaab yi joxoon ko wàcc waay jumaa jooju nag bi mu ci sonnee sonnee sonnee sonnee sonnee sonnee bi agsi fii ba woote juróom-ñeenti fan ci novembre muy le 9 novembre mu woote ca Touba raay bi taxoon jumaa ji taxaw ba nëgë ni raay bi sotti na seex sépp teew nañ mu wax leen ne nag léegi nag kon raay bi sotti na jumaa ji laa bëgg a dëgmal lu ma am danaa ko ci def lu ma waay jox ma defal la ko ci dëgg mën naa ko duutuma wàññi ko tàmbali sañ ci dëkk di fa yóbbu ay samp ay daara ñuy bay di indi bañ àggee ci la nga xam ne mooy 19 février mu def reconnaissance jumaa ji woo sëñ Mbàkke bu sa wuyoo yebal sañ àll mu jëlee ko mu ñëw mu tegal ko seex seex sépp teew nañ fa ak njabootu sëñ Tuubaa gi ñëpp teew nañ sëñ Fallu Mbàkke ñoom ñëpp ñëw nañ bañ àgsee sëñ Mbàkke bu sa daat koy xiblaal mu daal di jublu ci liggéey bi ban àggee ci la 22 mu dagg lu béb ga ba mu daggaloo béb ko ñu àgg ci 4 mars mu tàmbali liggéey ba ban demee ci 25 mars mu teg xeer wa seex sépp teew fa ak naar yi xarit naar yi gànnaar yeeg wëlëre sëñ bi ñëpp teew fa loola jikko ju rafet ko man waaye ku yorul jikko ju rafet mënoo lool mu daal di yebal seex Mamadou Fadal seex Masamba ca ndokk ne leen dem leen ngeen tàmbali roñ xeere seex sépp ñoom it kenn ku nekk jël sa mbooloo yóbbu ca ndokk sëñ Fallou dem def fa kër takk ndigg li dem di liggéey te sëñ Fallou bu ngeen gisee mu am impact bu am solo ci jumaa ji jumaa ji sëñ Tuubaa njëkkoon na santaane te tubaab bi gàllankoor bindaloo woon ko ak autorisation fayi ko ci xaalis bu bari te xaalis bu mujj lëj bañ di demante tribunal jumaa joojee xeer yee tubaab bi da ko bëggoon a gàllankoor ne ko xeer yi mën a tabax jumaa ji amul fii mi ngi am Ndakaaru te saxaara ko yénni waaye taal bi sëñ Abdourahmane Lo moo ne gannaaw Mbàkke gii de gis naa fi xur mu sax ay këll ci biir ay këll ne ci biir la ca wër din saxaw loola da nuru na ay xeer mu wax ko maam Thierno miy jëwlin ji mu yabal ko ne ko demal nga demal nga indi ci xeere mu yabal sëñ Fallu la yabal mu ànd ak kookee mu wantu xeere mu dem lalu kaalaam fell ji indi ko jox ko sëñ maam Thierno maam Thierno jox ko sëñ Touba sëñ Touba xool ko ne ko ndokk sama jumaa ji kat noppi na ba noppi ni muy war a mel suñ borom wax na ma ko te bu ngeen ci defee yitte da ngeen da ngeen da ngeen di jumaa ji dana noppi te yool bi ci nekk yéene naa leen foo jëlee xeer yi mu wax ko nag Cheikh Mamadou Fadal la ko indi mu woo la ko ca njéeréem mu jógee ndindi bi mu ñëwee ba njéeréem sëñ bi réservoir ko ne ko foo jëlee xeer yi mu wax ko ndokk mu ne ko noo def mu wax ko nam def fe lal kaala gi fel la ngir dab sag bëgg rek mu ne ko danga maa yàgg a wax fii noo dama laa bëgg a liggéeyal léegi def naa liggéey jumaa ji muy sab liggéey moo tax mu ñëw ànd ak sëñ Mouhamadul Moustapha te xam ne liggéey bi ëllëg ci moom lay mujj fëkkatalu ko dayalu ko waxu ko la ko naqari ànd ak moom liggéey bu sell xam ne ñoom ñaar ñoo bokk sëñ Touba loolu nawent rek ci jikko ju rafet képp képp képp képp moo ko mën loolu Cheikh Mouhamadou Fadal moom la def biñ demee ba war a defaat jumaa ji bees ji wutaat di ko kundiraat ci kundir bu bees wutaat beneen société bu ko war a tabax bàyyi bu tëllëri ba loolu it bañ ko defee ba war a tàmbaliwaat liggéey bi sëñ Fallu la fa yabaloon moo tax mun a xeer bu njëkk ba mën a wu mujj bi mën a sëñ Tuubaa daan wax jumaa ji danañ ca takk ndombal tànk des na ku ca tekke ku ca yokk di yokk ba faaw ku ca des gannaaw di ci des gannaaw ba faaw moo tax jumaa ji fu mu dem yu baale njabootu sëñ Tuubaa gi ndax ku ci ñëw sa yitte jëpp ci nga koy def bi liggéey bi tàmbali nag mu samp ay daara am mbooloo fa teewoon ñu wut ab maçon boo xam ne si moom moo koy liggéey ak ay emploi yoo xam ne si ñoo koy employé te ñëpp di bokk ci donga yi seex bu nekk jël liggéey ji def ko sa sëñ mu dumbe ñoom ñëpp léegi nag ñi fi nekkoon ci jamono jooju bi ñuy organiser liggéey jumaa ji war koo def ay pàcc ay kër comme niñ regroupé woon mille cinq cent personnes yooyu ñooñu lañ leen bëgg limal nii booba ñii ñoo fi nekkoon ci doomi seex yi ñu fi nekkoon sëriñ Magay Jabara doomi sëriñ aadama gi ak ki nga xam ne moom la ñuy wax sëriñ Modou Sarr ak ki ñu wax sëriñ Mbacke Sarr ak ki ñuy wax sëriñ Sarr ak ki ñuy wax Serigne Moustapha Fall ak ki ñuy wax Serigne Fadilou Ndiaye doomi Serigne Assane Ndiaye muy sëñ Daoud Assane Ndiaye ki ñuy wax Serigne Fadilou Ndiaye doomi Serigne Malamine Ndiaye ki ñuy wax Serigne Assane Guèye doomi Serigne Mababou Guèye ki ñuy wax Serigne Modou Kane doomi Serigne Mor Warxa Kane ki ñuy wax Serigne Modou Diaw doomi Serigne Abdoulahi Diaw ki ñuy wax Serigne Moustapha Baye Kéré doomi Serigne Makhtar Baye Kéré ki ñuy wax Serigne Mbacke doomi Serigne Mamar Ndoye ak ki ñuy wax Serigne Madiba Sylla ki ñuy wax sëriñ Madiba Sylla doomi sëriñ Maxtaar Marema Sylla kii ñuy wax sëñ Rijaal Seck ak ku ñuy wax sëriñ Mouhamadou Lamine Jenn muy sëñ Baala Jenn ak ku ñuy wax sëriñ Mouhamadou Xabbaan ak ku ñuy wax sëriñ Modou Awa Balla sëriñ Modou Balla Joor ak ku ñuy wax sëriñ Sayin Mbàkke ak ku ñuy wax sëriñ Modou Awa Balla ak ku ñuy wax sëriñ Modou jóob Samb ak ku ñuy wax sëriñ Maam Balla Mbàkke Misre ak ku ñuy wax sëriñ Seex Fatak Diop nijaay sëriñ Mourtala ak ku ñuy wax sëriñ Abdou Dieng doomi sëñ Balla Fally Dieng ak ku ñu wax sëñ Modou Sow Ba ak ku ñu wax sëñ Modou Diouf ak ku ñu wax sëñ Thierno Diouf Lambaye ak yeneen yeneeni kilifa yu bare bare bare bare bare yoo xam ne ñoom yàlla dogal na bokkoon nañ ci ñii ñu tudd kilifa yu bari mu daldi nag organiser dëkk yi nga xam ne ñoo wër Touba wutal leen ay bis yu ñuy ñëw di liggéey si ngir liggéey ba bari na lool te fokk ñu organiser ko kon mbokk yi xam naa dañuy taxaw foofu insha su ko defee ñu door a ñëw nag ci dëkk yi dañ koo bëgg a ñuy organiser ci waxtaan bi ba étape bu nekk ñu wax ko xool ni nga xam ne ni lañ koy mën a waxtaane ba waxtaan wi mën a àgg ci ñépp kii daal mooy Cheikh Mamadou Moustapha lii lépp nag mu am ko nekk doomi sëñ Touba dong mayu ko doon xalifa dong mayu ko waaye ay jikko moo ko ko may yu ànd ak yooyee mu mën ko dimbali ndax moom dafa jàppee ne ab bi boppam ndax sëñ Touba leen ko wax doom mayewul fii dara seenu njureel ñu jaay ko jëndee ko taal lu waaye mën a am ci àddina ci sëñ Touba te jënde woo ko taalibe amagoo dara ndax sëñ Touba ñaar ñëpp àtt leen sëñ Touba ñaar ñëpp àtt leen ki ñëw wax ko ne ko damaa bëgg a seex ngir lii xew léegi ndax jàpp na seex moom tegi tànk foqi baaraam ak wàccee mbagg ak nosal baat ak a nekk ci lu la neex defe na jig na la loola la ko jàppe woon dikk na ko damaa bëgg a seex mu ne ko loo ma defal ba ma di la seexal ko ah mbàkke yow kan defal la dara seex kat yaay na ku la neex nga defal ko mu a ko wax nga dëgg de waaye xam nga seex googu gi mooy lan Cheikh Abdou Khadir Jilaani la ko yàlla joxoon mu ko daan defal ci jamono jam fii nekk ba mu fi jógee nag maa ko ci wóotu te li ma ci man mënu ko Cheikh googu ngeen di wax nag xam nga ak Cheikh mooy lan mu ne ko mbàkkee dimbali ma ci mu ne ko boo seexloo lu bon rek Cheikh nga kon ndekete seexlu seex lu bon te turu Cheikh sax dafa amul maam Cheikh Anta la ko jëkk defal jëlu dëkk jox ko jël mbooloo toftal ko loole ba mu ko ko defalee keneen kam ku mu ko defalaat dañ naan lam defaloon seex defal na ko diw mujj ñu tudde ko ak ceex waaye turu seex moom amul ci turu maam seex anta la jóge seex googu nag mooy seex loolu bon ba faw ndax seex loolu bon mooy tax sëñ tubaa jox la dëkk jox la mbooloo waaye seex nii ñu ko jàppee def ko mbuur comme mbuur yi fi nekkoon di rey di nit ñekk xëccooy dëkk loolu boo ko jotewut ak sëñ Tuubaa dara kon seex googu sëriñ Tuubaa leeraloon na ko waxit doom diggam ak baayam wax ne doom de la ko war cee baayam na ko def la ko war ca kilifaam na ko def kilifa ga nag la ko war cee doom ja su ko mënul yàlla nee na man mii nag ban may def man loola waxit ay doomam ne leen njureel mënu fee mayee kenn dara kon sëñ Tuubaa kenn amul ci moom ab cër cër ba ca di am mooy ak taalibe lu fi waay def ba ba ba ba adduna di la coow rek ci taalibe la ku ko bëgg a jaar ci beneen bunt nag na nga xam ne kooka moom da nga ca wét wala boo ca baree mbooleet ñu ñu sànk dong lay doon te mooy maam ma sey ma ma ma ma ma ma sëñ Tuubaa doon wax sëñ Maxtaar Bintaloo ne bisa ngi ñëw ëllëg danga gis ku taxaw nanguwut a jaamu yàlla di ma tuddoo mbooloo topp ko mbooloo fàqat yi ñu dëgmal sawara waxum di daw te taxaw doxuñu te buñ taxawul danañ àgg te ñoo ñee ne nañ may seen sëriñ kon lu ngeen fi gis muy niroog loola rek ca seytaane googu la bokk kon mbokk yi ñu ngi taxaw foofu di leen xaar ci fukkeelu waxtaan bi ak juróom ñëw nag ci dëkk yi nga xam ne moo waroon Touba ci seex si nekk fii ni ñu organisé woon liggéeyub jumaa ci loolu incha allah kon ci lañ bëgg a ñëw kon nu may du nopp jërë ngeen jëf